Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD ñoo leen di may seen de presse. jàngeen jëf Diomaye ak Sonko ñoom la yéen kay xewele tey fayo gi dal na de noone la ko réew mi quotidien daal di xamle li ko waral bokk na ci dogal yi nga xamante ne njiitu réew mi jël na ko ngir gàntal motion de censure bi nga xamante ne majorité parlementaire bi ñu ngi ko bëgg a jëmale ci gouvernement bi nga xamante ne moom la Ousmane Sonko jiite yéen kay groupe réew mi network bi di xam xamle ni kon président Bassirou Diomaye Faye ci boppam gor na li nga xamante ne moom mooy mbébétu Benno Bokk Yaakaar ba mu wootee beneen session extraordinaire ni ki tey jii mu nekk mbetteel dëgg yokk ci beneen mbeteel ndax déclaration de politique générale bu Ousmane Sonko ci boppam boole na ko ci réew mi yamu ca de nee ne njiitu réew mi ci boppam gor na ay bopp ndax Abdoulaye Daouda Diallo mi jiiteewoon conseil économique social et environnemental ak Aminata beng Ndiaye mi nekkoon ci bopp au conseil des collectivités territoriales dàkk nañ yi ak Sonko ci seen bopp daal di nañuy fexe ba nërmeeloo pexe yu Benno Bokk Yaakaar bokk na ci motion de censure bi ñu gàntal mu mel ni lu jiitu communiqué bi nga xamante ne présidence de la République moo ko fësal Ousmane Sonko yëgle woon na ba noppi ndax ne woon na motion de censure du am te fukki fan ak ñaar daañu tas bile assemblée nationale li xew ci assemblée nationale enquête daf ko jàppee ni ay manœuvre politique la ab session extraordinaire nag la ñu daal di wootee ni ki par décret ordre nag bokk na ci déclaration de politique générale bi ñëpp doon sàkku ci Ousmane Sonko dogal bi nag ba mu jibee suñu naataango yi di xam ne ni député yu Benno Bokk Yaakaar mer ba futt la ñu def li leen tax a mer nag du dara lu dul article 84 bis bi le jour jàpp ni loole mooy ngànnaay bi faat mbébétu Benno Bokk Yaakaar yéenekaay bi yokk ci ni njiitu réew mi ci boppam moo sowe premier ministre ci xeex bu mu sekk ak waa opposition bi xeexam déet l'observateur daf ko jàppee ni ab jongante bu tar la ci boppu état bu Sénégal ci boppam te démb li njiitu réew mi Fay daal di def ngir sowe premier ministre am di Ousmane Sonko bett nañu bëri li xew démb tax na ba le soleil yéenekaay gis ni carte gi ci boppam jaxasoo na ndax journée rebondissement politique bu ñu nemmeeku kàdduk njiital jëwriñ yi ci biir yéenekaay an bi mel ni kiy dalal ay jegeñaaleem ndax nee na motion de censure moom du am te fii ak fukki fan nak ñaar ci weerub septembre député yi di tabaka dal dinañu am leneen lu ñu tal Sonko di addu Jomaay di jëf le quotidien le quotidien gis ni lii day dëggal ni Sonko mooy Diomaye Diomaye mooy Sonko Sonko ci boppam dekkalaat na gatsa gatsa gi ci bopp état bu Sénégal les échos yéene moo ni jàngatee gannaaw ay kàddu yu premier ministre bi daal di yëkkati ni ki démb ak taxawaay bi nga xamante ne nguur gi daal dina koy am ngir tas assemblée nationale waaye tamit ngir soobu ci li nga xamante ne moom mooy reddition des comptes reddition des comptes ak pexe yi nga xamante ne ku ci nekk mu ngi koy nas lii day wane ni daal xeex bi ma ngay gën di yokk bu ñu sukkandekoo ci Sud Quotidien ndax gannaaw ku kaawo bi nga xamante ne bennoo indi na ko nguur gi daal dinay delloo ab ku jar nag jëmale ko ci Benno Bokk Yaakaar te coup bi sax li tax mu métti yéenekaay groupe Sud Communication di xam ne ni kon bokk na ci li ñu tekki ndombal tànk Abdoulaye Daouda jaloo ak Aminata Mbengue Ndiaye li Ousmane Sonko sàkku ñu daal di tamit bloqué ay compte institution yooyu waaye tamit ñu door ci nu mu gën a gaawee li nga xamante ne moom mooy traque des biens mal acquis Rewmi Quotidien dëggal na ko sax ndax nee na Ousmane Sonko ci boppam song na ñu ñu duppee ay délinquant délinquance bi amoon ci coowal Prodac jàpp ni léegi mu leer libération ci la tey di xam ne ni kon rapport IGE boobee ci boppam daal dinañ koy jébbal division des investigations criminelles Barthélémy Diaz fas yéene jébbal askan wi li mu jot liggéey ba mu jotee ci mairie Ndakaaru ak léegi l'info yéene kay moo ni càmbare mi mandat bi nga xamante ne doomu Jean Paul Diaz bi def na ko ci mairie bu capitale bi ci lëkkaloo diggante Chine ak Sénégal ci la Le Soleil yéene kay dikkaat wax ci ay ponk yu ñeel industrialisation ak wàllu mbay mi ak déggoo yi nga xamante ne njiitu mi Bassirou Diomaye Faye daal dina koy am réewum Chine di Xi Jinping ak Jomaay fës tamit ci xët bu njëkk bis bi la jour ndax seen lëkkaloo yi nga xamante ne fas yéene nañ koo gën a dooleel moo tax mu jàpp ni lii moom ab grand bond en avant la Bombardier àdduna ci xibaar yi fës ñeel fin de carrière am Rewmi Sport daal dina ci dikkaat wax ci leeral yi nga xamante ne moom bay 52 bu mbuur daal na ko ci indi Brahma Traoré lu mu indi mu ngi ci biir record yéene kaay kii tàggat équipe bu Burkina Faso mi nga xamante ne kon ñoo war a laale suñu gaynde ni ki ëllëg moom xam le na ni